gën sant bu baax ci digal gi mu digal xutba bi barke bi bi dégg yi rek ci suñu nopp doy nanu daja des nag moom euh, mënu des wax lu ñu waxutoon dëgg la xanaa fàttali ak soññi rek loolu it mën naa bañ a gudd loolu di moo di rek ñu gën a góor góorgóorlu bu baax ci suñu diine góorgóorlu ci sàmmonteeg moom bu baax a baax suñu kem kàttan góorgóorlu itam sàmmonteeg suñu taalibe lu cay suñu kem kàttan góorgóorlu itam bu baax suñu diggante ñun jaam ñi góorgóorlu bu baax ci suñu jëflante suñu jëflante yépp ñu ko sànne góorgóorlu ci bu baax ci ni mu gën a rafete jëfe makaarimul axlaaq yi maanaam di jëfe jikko yu yi kon gannaaw itam safaan yi diggante boobu rek ñu góorgóorlu bu baax a baax sax ci sant sunu borom moom mi nu ci sant sëriñ bi moom muy sunu lépp tey ak ëllëg dëkk sax dakk ci wéete sunu borom ci lépp sax dakk ci doylos sëriñ bi suñ digganteeg moom ci lépp sax dàkk nag ci góorgóorlu bu baax nag sàmmante suñ diine rek sàmmante suñ taalibe loolu rek mooy li ci am solo mu ngi sant bu baax a baax bokk yi sant kilifa yi sant taalibe yépp sant bokki jullit yi taxawaay bi nga xam ne waxtu bu nekk ña nga ca muy taxaw tem ci diine ji taxaw tem ci taalibe gi ndax taalibe gi diine ak taalibe rek moo koy mottali moo koy rafetal ndax taalibe dara lu lépp looy def di ko def te yàlla tax mu bëgg mu mu mu jëf lu baax di daw lu bon te yàlla tax di wattandi ko bu baax safaan ba ci lépp luy xeet ak lépp loo xam ne ñe rafetul lu góorgóorlu ci bu baax a baax di ko sàmmanteeg moom loolu rek mooy li ci am solo kon fàttali rek la ak soññe góor góorgóorlu bu baax ci li mu fi muy jaamu yàlla rek da ca dolli ko mooy liggéey sëriñ bi te yàlla tax dañ ci góorgóorlu bu baax loolu moonu jig moom ci lañ mooy suñu njëriñal tey ëllëg mooy suñu biyeeg suñu njëriñal biir ak bitti ci la suñu mucc mucc nekk muccu tey nekk ci la suñu muccu ëllëg nekk kon nag góorgóorlu bu baax a baax a baax suñu yitte jépp ñu ko def ci jublu yàlla ndax loolu lépp mu ngi ci jublu yàlla ne suñu yette yëpp na yittewoo yàlla rek alhamdulilahi rabbil alamin sant bu baax ci tawfeex juré yi nga xam ne suñu borom defal na may def may na sëriñ bi sëriñ bi moom yittewoo sëriñ bi mu yittewoo yàlla rek jublu sëriñ bi mu jublu yàlla rek ndax bàyyiwul dara ci digg ma borom kon lépp lu mu mën a doon ñoo ngi ñaan bu baax a baax gannaaw ba nu santee suñu borom ko ñaan bu baax a baax a baax mu gën a fab suñuy nas gën koo dénkal sëriñ Tuubaa sëriñ bi wommatal na boppam lu ci def lépp na kon ak cant rek la war a doon ak sax dàkk ci góorgóorlu suñu kem kàttan ñi ngi sant ñépp ñi ngi sant bokk yi kilifa yi bokki taalibe yëpp bokki jullit yëpp kilifa yépp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax eh, taxawaay bi benn rek la noo ko bokk muy nekkal fi nekkal nekkal fi yàlla ñi ci lim nu fi indee sax dàkk ci jaamu yàlla rek ak ak ak ak liggéey sëriñ bi ci lépp suñu lépp baax lu baax te yàlla tax loolu rek na nekk ci diggante boobu rek li ci lépp nag moo am ci rafet njot am ci xel mu dal gën cee gën am yaakaar loolu rek la jërë ngeen jëf ñu ngi sant bu baax a baax di am mbégte bu baax a baax ci taxawaay yi xam nañ ni taxawaay yitte ji yépp mooy sëriñ bi yittewoo sëriñ bi rek mooy yittewoo yàlla rek kon jërë ngeen jëf fa tabaarakallah